di len wax ngeen abonné ci chaîne bi di loxoy du monde tv té bés cloche de notification bi ngeex ngeen di mëna jot seeni vidéo à temps réel waye tam mën ngeen ñu bayil seen xalaat ci commentaire bi ndax loxoy du monde tv yeen la fi nekkal ngeex di jaamu seeni soxla السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ين مبكو Sénégal ñi nekk ci biir ak ñi nekk ci biti bi maanaa diaspora bi yéen yépp maa ngi leen di siyaara te di leen yëgal ne bu leen jaaxle bu leen tiit yàlla mi am doole mu ngi ak ñun fu ñu tollu ku yaakaar ne ne man nga dara ci moom yaa ngi nax sa bopp waaw da ngeen ma posé ay question bugguma woon waxtaan tey li xew ci mbiru réew mi ndax xam ngeen ne man mii ku bugg fi yonent bi riñaane mooy Palestine ñun waa foofu lañu ndax ku ci am nationalité war nga sant yàlla ndax suufu yonente bi la waaw da ma posé question ne lu mat ñeenti weer juróom benni weer ñen ñu ne depuis at yaa ngi wax ne am na lu xew man nag aw ma loo xam ne li war naa leen ko nattali ci boor boobule waaye la fa xew xam ngeen ne kat tooñ baaxul ndax histoire dëkk boobule parce que ba ñu fa installé ba léegi coow rekk moo fa nekk ak xeex ak histoire ndax 1948 la leen fa yóbbu dañu leen bëggoon yóbbu Afrique léegi si tey ñu xalaat ne du sotti. léegi tey ñu installé leen foofu ndax bëgguñu leen ci seen continent yi du continent européen du continent américain lañu leen soxla léegi léegi lii commencement la rek waaye lay mujj yàlla wax na ko ci alquran ñoom ñooñu bëgguñu biibal bëgguñu isa ibnu mariam bugguñu itam seen yonante bi muy Muhammad bugguñu ko moo tax bi ma déggee ne Macky dafa jàppanteeg ñoom ma xam ne Macky moom amul bopp amul fulla amul fayda defoon na alerte waxoon naa ne ñi nga àndal ragal lañu tappet lañu am na sax benn ministère ministère wu sénégalais bu fa demoon fekk mu nekk affaire étranger te mu sant njaay mu dem di sujoot ci seen tàmpal boobule loolu moo taxoon alhaaji Ousmane Tanor Dieng moo rekk le boobule histoire wax naa leen ko fekk ñu nar a dal ci kaw kaw Sénégal ma dégg ko ma téléphoné Alhaji Ousmane ma yëgal ko mbir mi mu jël avion ngam ñëw France bi mu ñëwee France ñu fexe bi mu tasak ñooñu le xam naa ne ndax Macky war na ko yekk ndax mbir mi tàngoon na waaye Sénégal yi yëguñu woon li xew waaye fexe naa ba jël ñooñu le ñu toog ak Ousmane Tanor Dieng mu waxtaan ak ñoom ba mbir mi kalme ngir ministère boobu nga xam moo yoroon affaire étranger dafa dem foofule di su ci seen tàmpal bi naar yi mer Macky nag dafay suufel naar yi suufel suñu diini te ñooñu buñu sañoon église ba fa nekk mooy église su Isa ibnu Maryam jóge fa mosquée ba fa nekk mooy mosquée yonente bi jóge fa ndax ñoom amuñu xel amuñu bopp amuñu fulla ak fayda te xamuñu ne kii ñu wax ne moom mooy seen yonente mooy Moussa africain la yonent yi daanaka ñoom ñëpp africain lañu waaye dañu respectul Afrique Afrique dañu ko ke ci Afrique moy ciosanu aduna adam ak Hawa ñom africaine lañu motax tax li manen leen tontu comme ciow la bari na nañu bayyi be benen bes ma dor leen ci waxtaanam waye yegal na leen xitam ne fofu inshallah allah dina musse yengu te mo ngi commencer yengu am na réew yoo xam ne sax invité nañu leen pour ñu ñëw réew yooyu leen ñu ne ñu xaarandi bi ci kanam ci Moyen-Orient la ñu nekk waaw ndax cin baa ngi baax pour li moment am na ñuy nekk nag di kondaane mooy union européen yi ak américaine ñu ngi kondaane xanaa ñoom kay bu ñu mënee wax nañu wax histoire ba jeex. bu nekkoon ne Afrique moo yëngu tey ñëpp ñu ngi daw di fekki si di xool di coow waaye foofu mu ngi yëngu depuis ay ati at lu tax duñu ko réglé lu tax ñoom ñu si dugg li ma gën a métti foofoy ati at suñu xalifa généraux yi duñ ci wax lu ta mbay si du wax ci dëkk boobu boobule ci yonent bi foofu la doon riñaane lu tax Mountakha mi yónnee xaalis fu nekk ay tur fu nekk lu tax doo wax foofu le bu nga xam ne ñoom nitu caaxaan lañu bu la nga xam ñoom tikkuñu dara ngistal rek wanewu ngistal wu mbay si di jaay moustache Mountakha di jaay ay boñ wane boñ léegi yéen waa réew waruma waxtaan dafa am rek question bu ñu ma posé ci côté boobule waaye mënaguma ci wax dinaa ci wax ñun nag def nañu alerte depuis de weeri weer am na luy xew si foofu foofule ndax ña fa nekk ñoom jàmbar lañu grillé lañu góor lañu ndax dañu doon seen maam yi am na tur yoo xam bu ñu ko prononcé woon tey jii ñu nekk ci Sénégal Macky di leen fa indi dañuy daw génn. dugg ci géej ngir tiit waaw fi may tajee suma waxtaan bu gàtt bi tey ndax du waxtaan eh, mooy ne waa réew mi buggaleen seen bopp am leen ful ak fayda yéen a ngi ci musiba gis nga Macky mi ak ñi muy préparé ni musiba la safara la fii la leen di rëyee nag mu jeex takk te ñu nekk ci biti duñ ci man dara génni leen ci biti ngeen dàq ji kii fu ngeen gisee Amadou Ba def meeting xale bu ci mën a def loo xam ne lii dina toj place ba na ko def même buy deex na deex fu ngeen gis rekk waa karu mag yi daje rek na foofu tàkk fu ngeen gis ñu def meeting ndax ñi ñoo leen sàcc ñoo rey seen doom yi ñoo taj seen mbokk yi kon nag amul masla génn leen ci biti yéen M24 yéen sàggan dangeen di naxe xanaa du ngeen nit bàyyi leen caaxaan yi ngeen nekk te génn ci biti na am góor yu jóg taxaw génne xale yi génne mag yi génne jigéen yi ma ne yéen M24 bëggatuma dégg ay conférence de presse génne leen attaqué gars yi yéen Y'en yenn marre yi yéen association yi yéen yëpp na jog jokk nekk benn loolu mooy régler réew mi bu leen xaar ne da ngeen di xaar élection Macky mu ngay fen di dajale léegi tey ñu ngay xaar bi ñu sàcce ci yéen moom lañuy ñuy jéem a neexale nit ñi na ngeen jàpp ñi door leen ñu dellu seen xaalis moo gën ngeen di leen xool doomu sénégalais daawul woon ñàkk ful ak fayda ci suñu maam ya ndax suñu jamono kenn du ñu yab waaye yéen Sénégalais yi da ngeen sàggan génn leen ci biti seen njëriñ la seen avenir la seen njaboot te ngeen bàyyi caaxaan yi ngeen nekkee loolu rek laa bëggoon a sande loolu rek moom mooy début bi mooy fin bi jokk leen xeex ak ñii jokk leen ngeen jàpp leen mu ne wàcce kenn muy def meeting ci ñoom ñii waa kër Macky xale yu góor yi lu ngeen mën a def rek fu ñu taxawee groupe rek na am kenn ku dugg ci biir mboolu mi tasaare ko waaw tasa loolu lay naar yi di def ak ñeneen ak ñeneen gisoo kenn mooy jox rey junni junni nit koo xam dañu la sàcc koo xam dañu rey sa mbokk koo xam dañ tëj sa mbok nga nekk di wax du dialogue liñ tudde munaaxasa du mooy rek le problème bi mooy di waxtaan ci seen diggante kooku nax nañu leen ñi ko waroon a def mooy kilifa ya muntaxaa jëndal nañu ko mbay si jëndal nañu leen daaxa ba nag waxi noppi ñooy jox Macky xel waaw Madina Gunaas toog mu ne day wirde di ñaam xale yi nag na am jom mag yi jigéen ñi góor mag ak ndaw na dëkk bi yëngu ngeen dàq ñi yéena man yéena leen man kon nag ñi ma doon posé question ci diggante Israël ak Palestine tey du ma waxtaan ugum yenn yéen waaye xamkat yi gastukat yi xamoon na nañu xamoon nañu ne am na luy xew waaw kii commencement la di ngeen dégg yëpp waaw ki nga xam ne kii moo nekkoon ci affaire étranger moo ngi tudd Sidiki Kaba mooy Kaba bi nekkoon affaire étranger moo demoon di sujjóot ci temple ba moo taxoon ndeysaan نار يمرون بنار دل تيكو سنغال ما دل دي كوماسي توب تولو لي ارانجي واخ اك نيوم ماني دينا ام كليفا بو نيو واختان اك يين بيغن خامني سنغال كونترول كين سنغال جام رك لا سوخلي تي لا تليفوني سيد الكريم الحاج عثمان تانور جين mu jël avion ñëw France ma fexe bi mu toog ak naar yooyu le ci France ñu waxtaan bi juboo joxante loxo xamaa ne Macky day dof dof lu waay yëkk na loolu le ndax quand même Ousmane Tanor Dieng jege na ko trop te Ousmane lu toll noonu le bu nekkee daf ko arrangé dina ko yegal Macky naar yooyu le noonu lañu leen jàppee ba ñu bañ a dal ci Sénégal gis ngeen tey li xew ci mondo bi loolu moo tax makki na bàyyi dof-dof lu yi muy dof-dof lu ñooñu amuñu doole amuñu xam-xam gis nga seen liggéey bi yépp li naar yi inventé ci lañuy ñuy liggéeyee mathématique naar yi ñoo ko indi mathématique bii occidentaux yi ñoo def loxo ci ci naar yi jël ko naar yi éventé beneen ñoom ñii nga xam ne nag noonu lañu amuñu dara amuñu xam-xam waaye nag dañuy profité ci li naar yi éventé waaye ñu bari ci kilifa Sénégal yi ñu ne kilifa lañu waaye mbaam laa leen teg nga bàyyi mosquée Serigne tuuba bàyyi mosquée Alaaji Malik et cetera ngay dem di sujjóot ci noon yi ci Israël Sidiki Kaba yaa rusuloo ñépp ñàkk fulla fayda sa photo boobu naar yi ñoo ngi moom fu nekk ci mondo bi te moytul sa bopp nag moytul waa loolu la xaw naa fàtte ba ma ne njaay la sant sax waaye du njaay kabala waaw kon nag gaa maa ngi leen di yëgal ne na ngeen jóg taaw te xeex génn ñii ci biir réew mi ndax noonu réew mi la ndax mbaam ñu mel nii jóge ci Sénégal wocc kër Alaaji Malik kër alaaji e, e, e, ñoom bu kumta ñoom ndeysaan Touba di Sëriñ Touba muy dem di si jot ci temple ba fale ci Israël kaba yaa ñàkk jom ñàkk fulla ak fayda waaye nag gàcc ngalaama Ousmane Tanor Dieng jaay nga sa bopp ngir Sénégal ba wax ak naar yi ma tok ñaari tok tok benn tok tok waaw te ñooñu le tey ji bu ñu leen woyoon ñu ne ah tok nañu ak monsieur jeng da nga ñuy ruslo di ñu tooñ toujours kon wa senegal ma delot di leen wax ne alaykum ورحمة الله وبركاته